ñoo def ci dëkk bi élection yoo xam ni Ousmane Sonko du ci bokk Abdou Mbaye du ci bokk xalifa Sall du ci bokk Karim du ci bokk ci diggante bi ku ñu fi tuumaal boo duggul kaso sax boo amee sursis doo ci bokk et loolu mooy danger bi ci Sénégal euh, Mansour dañuy génn tuuti ndax njiitu mouvement gëm sa bopp moom mu ngi wéyal ba tey tournée bi mu dippee tibb tànk ci bésu tey bi mu nekk fële ca kër Momar Sarr euh, fa la ñuy dem fekki fa Alassane Balde Alassane waaw Khady Colonel maa ngi lay nuyu ñu lay fay bu baax a baax lan la ñu mën a jàppagum kon ci visite bu euh, njiitu mouvement gëm sa bopp foofee ca Kër Massar. Kër Momar alors li ñu mën a jàpp rek mooy nag ki nga xamante ne mooy euh, Bougane Gueye Dany dafa xëyoon nag ñëw fi nga xamante ne mooy axe Kër Momar Sarr jàpp li nga xamante ne mooy ñoom rek ñoom rek sax moo wax ni jamono ji fa lañ nekk nii di li amal li nga xamante ni mooy ndaje bi mu seq waxtaan ak ñi nga xam ne askan bi naam sax guddi na mais teewul nit ñi ñu ngi fi mobilisé wu di ko xaar parce que nag tournée bi ñu ngi ko dooree depuis 9 heures 9 heures lañ ko door ci suba nag euh, fële nga xamante ni mooy ca Ndeer ku ne nag xam na Ndeer ndax foofu si euh, taarixu Sénégal daf ci bokk nag waaye ñu jàpp nag Ndeer ñoom ci ay jafe-jafe métti lañ nekk rawatina lu jëm ci wàllu ñàkkum ndox mi mu nekk nag loo xam ne lu doy ndax mënuñu comprendre ñoom ñi nekk fi nga xam ne mooy ci lac de bi ndax ku nekk Kër Momar Sarr xam ne Kër Momar Sarr ndox bi fi lay bawoo wutali Ndakaaru di alimenté Dakar Thiès ak ñoomin seen ak luga ñoom ñi nga xam ñoo dëkk fii amuñu ndox ma jàpp ni euh, fi nga xamante ne rek euh, ci askan bi li ñuy wax euh, mooy ca ndeer foofule ñaari robine ñoo fa am ñaari robine yi fa la askan bi yëpp di rootee ca dëkk bi nga xamante ne mooy Yaman fal foofu benn robine moo fa am te robinet mbedd la ñëpp askan yëpp fa la ñuy ñëw pour jigéen ñi dañuy yor ay bidon fii boo xoolee sax oto yi lu ci ëpp dañuy yor ay bidon di di dem ak ñëw ay charrette jigéen ñi mu nekk nag jafe-jafe mu nekk nag paradox parce que ca Dakar ni ñi ñi ngi xelli seen robinet fii nit ñi dañu ut ay charrette pour ñëw ut seen dox pour mën ko yóbbu seen kër mu nekk nag jafe-jafe ba tax nag loolu yëpp ñu becc ko ci kanam bi nga xamante ne mooy président Bougane Gueye Dany moom nag wax na ko mu jàppee ko nag li nga xamante ne euh, maanaam ci wolofal dafa di suukar lem te soom bi kon ñu jàpp ni moom noonu la ko gisee ba tax nag ñaawlu li nga xamante ne moo fi am ndax jàpp na nañ mun mënuñu jël lu toll ci 75 milliards dugal ko ci ndox pour askanu Ndakaaru fàtte ñi nga xamante ni mooy askan bi dëkk ci gox bi mu nekk nag lool loo xamante ne mu jàppee ko daal ni dañ leen xaw a suufeel kon loolu lañ mën a jàpp yeneen jafe-jafe tam wax nañ ko fi lu jëm ci wàllu éducation santé euh, chômage des jeunes foncier bëri na ay jafe-jafe yi nga xamante ni boobu ba léegi nag askan ñu ngi koy becc ci kanam ki nga xamante ni mooy président Bougane Guèye waaye benn kaddu dong la leen yeggee nee na magum lëndëm nag buñ ko dajul mu daj boppam. jërëjëf euh, Alassane Balde ñu wéy ba tey ci tournée mouvement gëm sa bopp boobule ndax Bougane Gueye yi mu ngi sàkku ci njiitu réew bi mu indi ay leeral ci juróom benn euh, milliard ci suñu ay koppar ñu ne moom la ñu financé dak bu kër euh, Momar Sarr ñu njiitu réew mi sax inauguré ko samedi bi ñu wees suñu déglu ko. lii ku ko xam xam ne matut 6 milliards fii maïs lañ fi jëmbat fii maïs moo fi nekk maïs moom moo fi nekk nee nañ moom lañ fi jëmbat euh, vingt cinq hectares man daaw bay naa maïs sept hectares si je me rappelle li ñu dépensé grand maxi trois millions cinq cent la bu ma juumut trois millions cinq cent la ñu dépensé ci sept hectares man daaw ñii ñëw def vingt cinq hectares ak euh, mband yi ñu installé nii ci suñu ginnaaw ñu ne ñoom def nañ ci six milliards te employé nañu annoncé quatre cent personnes fii bu ngeen xoolee xam ne fii ñaar fukki nit nekkuñu fi kon nañu bàyyi di nax sénégalais yi et loolu nag mooy intérêt wu tibb tànk bi ñuy def.